waaw dooma ngi dem de dooma ngi demati nag waaw fa yàlla rek waaw damay taxaw nag daal di yàpp waaw xam nga man du taxaw duma ma xaare waaye damay këf damay jël di yóbbu waaw damay jël di yóbbu léegi xaaral ma jël ñuy yóbbu dëxañ leen waaw ñoom lépp rek waaw ca maam ca yàlla rek jàmbale ci maam yem ci maam doom fa yàlla la kii ñoq liñ bët kull tunnel